asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan Elvision Média euh, man la jom Sall ñu gën ma xamee nag ci dëkkandoo bokk ci noy moytoo sa noon di di di kooru mama voilà maa ngi leen di maa ngi leen di dalal quoi bu baax. Ah. waaw débuté bi moom xam nga euh, El moom moom mooy toog rek. xalaat benn affaire xam nga teg ko waaw noonu la ñëwee aussi quoi dafa toog benn jour mu mu xalaat affaire bi teg ko boobu nag ñun dugguñu woon sax euh, ay jigéen ñoo ko doon def ci diggante bi nag après ci la ñu woowee ñu ñëw boobu mu ngi tudd woon nooy moytoo sa noon nooy voilà ci biir ñuy def nooy moytoo sa noon di ko dugal gars yi ñu gis ni gars yi bëgg nañ ko apprécier nañ euh, affaire bi euh, koor gi ñëw nag tombeek ñu koy def ñu ne nag ci lañ ne pourquoi pas duñ ñu def koor maman parce que gis nañ ci bëri na ci ay soppe te souvent toujours gars yi ñoom ñu ngi koy xaar ci seen bi ci lañ créé kooru maman euh, maa ngi ciy tudd nag dëkkandoo euh, voilà ni ni nii ñëwee quoi. dëkkandoo. waaw. turu dëkkandoo maman moo ma ko tuddee rek xam nga maman daf maa yeb. waaw ah, ma daf ma yàpp quoi moo tax comme man ci biir gàlle bi laa nekk euh, nekk locataire yàgg ci kër gi dem nag ba ba bokk ak ñoom quoi xam nga xam nga dëkkandoo bu yàgg rek mun na dem ba jur mbokk waaye toujours nag maman moom mayuma jàmm mu may bunt xatal ci kër gi euh, di ma sonal di di xool di xool di di di di di di di xool lu ñaaw ci man xam nga <laughs> mu koy génnee maman daal sama noonu la ci biir kër gi sonal ma nag wit. yow eh yow lan la yow lu fi ñor bañ koy màcc laa. damaa xamul déggoo li ma wax kër gi dafa am ay jinne di. yow rek léegi day fëtt fëtt sa tubay bi ñu ñëw a ñëw ñu mu sonn rek yow lii lan la. yow naka laay tegee sama xaalis sama téléphone fii ma dugg génn ñëw fekkuma ko fi. ku ko jël boo demee yaay bi la xari temps amoon na xar bu jur bëy. waaye boo moytuwul xar dina jur nit. Eh. gis na violeur bi eh, ci dëkk eh, bi lan war a wax. lan war a wax de. yaa ngi bëgg a ëppale yaa ngi bëgg a ëppale yow yow yow dimbali ma yow dimbali ma. maman li ñu fi jël xar bee la ëpp bopp di rondre ba dem boole la police yow. yow maman Mbadou dañ laa violé. yow kañ laay waxal. yow mii laay waxal waaw man mi ngi lay jabar. waaye ma sama xaalis ñëw ak sama téléphone fekkuma ko fi Ah, lu sax nga ca laajte ko xar bi ci xar bi nga demoon. xaar xool naa gi gisuma dara mama ya ko jël mama. waaw naturellement est ce à part théâtre bi est ce gënul sax gënul gënul garaaw sax ya biir théâtre bi parce que dañoo yabante man ak moom ma ngi koy nuyu des passage parce que nit la kaman teni ni ku baax la waaw ku jox cër la ku respecté la eh, sonal na ko trop ma nit parce que wax ba ma mer. ay coté tournage léeg nga woo ko mu xaw a tardé nga taq ci kawam yoo mais terewul euh, day reetaan rek quoi du la topp ci sa ci sa tàngooru dënn euh, loolu tamit nit ku baax rek moo ko mën nekk sama xarit nag dañoo yabante naturellement man nag moom mooy loolu foo fekkee suñu jotaay moom non da ngay ree ba sonn. waaw maman de laa lay may rek nga def ko ñaareel wax ji jeex. Ah, la benn affaire xolal ñi ñetti jabar lañu am ñi ñent li dépassé nañ ay ñaar sax man dëgg fa yalla la man nekk ni war na toll sax ci ñaar. yow yow bobu lay ngi ci ben eh doyna yow sun joy da bare nañ ka kaa changé sa garab bi da ka kaa changé yow sa habillement nekk zéro. waaw ay mbokk lañ ci ci ci ci ci lang quoi maanaam moom xaalpulaar la may euh ñu nekk tamit ay xarit. vraiment mu jox ma cër moom it euh, nekk sama sama sama waay jëkkëram sama xarit la loolu ñëpp xam nañ ko euh, moom amuñu nëbboo waaw amuñu nëbboo euh, sama xarit la ku ma jox cër la ma nit ma jox ko cër waaw muy nit ku baax Zeyna yi a koy woowee la puissance xaw ma <laughs> voilà. ak képp koo tooñ da ko war a dem baalu képp ku la tooñ da nga ko war a dem jéggal. <laughs> dama jëli sa jabar booy ñu am ñett. gaa yi di la ci koñ bi. neexul ba neexul nag dama foogoon sama doomu ndey nga mais xam naa ne ku ma bañ nga. si man sa doomu ndey laa. non dama bañ. pël bu rafet fi la nekkoon yàlla dogal na ni am nañu problème mu ñibbi seen kër ma takk keneen indi nga ne man naa dem jëli ko ñetti jabar ci xale ñett mais ñaari ma yor sax yow yërëmoo ma maa ngi négocier nu may nekk ñoom nga bëgg maa wutloo ñetti jabar est-ce yaa ngi xalaat. mooy loolu yëfu gëree la ñetti jabar fu mu toll nii ku ko am gëree nga waaw lu rafet rek bamba nag nekk sama sama xarit waaw nekk sama xarit nekk euh, koo xamante ni moom it amuñu nëbboo euh, fu may dem ñooy ànd fu muy dem ñooy ànd euh, ba ni ma sol nii sax moo ma ko ñawal moo ma ne carrément bëgg naa booy tourner sa émission nga sol ko aw ma fayam quoi te yamul ci lii dong chaque instant day ñawee affaire yu rafet di ma ko jox mu nekk sama xarit vraiment waaw kooku moom naturellement ay xarit lañu ay ay gaañ lañu quoi ku ko gis ding ma gis si wetam ñeneen ñi ñeneen ñi ku ci mel ni ko mm, kooku it sama xarit waaw euh, bi ñu xamante ba léegi vraiment dara ñaawul jox ma cër te dañuy déggante lu bëri man ak moom waaw mu nekk sama xarit moom it ñoom ñëpp daal vraiment ànd bu ànd bu rafet la ñuy ànd waaw bu rafet dañuy ànd parce que dëgg rek la waxante tamit xam nga te ànd moom bu ko dëgg lalee rek dafay dafay dafay dafay dafay dafay dafay neex quoi. parce que Adja aussi bu ngeen gisee sax bi yoon gisoo leen ko lu bëri ci mm, kooru mama bi parce que dafa amoon ci lu mu nekk voilà dafa amoon ci lu mu nekk moo tax gaa yi gis ñu ko bu baax mais xam naa waajal tabaski bi incha allah gars yi dañ ko gis bu soobee yàlla nekk sama xarit ko souvent ñu ngi diggante voilà. di apprécier sax lélé ñu def ben affaire même bu bu ñewul bok sax dina woté xam nga féliciter apprécier affaire bi nek nit ku ku yalla baxal ay li ngay wax set yalla la ilaha illallah yow da bo japp sa bos mu yobale li kan la wax kala doxan la ki la doxan doxan rek lay def wa kan? ki moy kat ki moy ki mo don expliquer <laughs> doxan kat baangi ni moy nogu non tek nguro doxaan rek lay def. jom yow kii mooy kan. kii mooy dëkkandoo. sonal ñu witti nag. non non duñ ci am problème parce que xam nga lu tax moom dafa nekk koo xamante ne nii su xoolee nit ki rek dina xam lu nit kooku mën ak li mu mënul quoi toujours su lay jox dalay jox loo xamante ne ni moom day xam ni carrément mën nga ko. mu jox la ko parce que moom it dafa yàgg ci millier bi yàgg koo def am ci xam-xam am ci don ñaar yëpp la boole vraiment moom it mu yéene ñu xam nga voilà moo tax affaire yi méttiwul si ñun quoi waaw. ku ci mel ni Zal Saliou yow moom chaque jour da nga may naan <laughs> damaa compliqué mais du question compliqué parce que nit kii soo sooy liggéey benn affaire da nga koy danga nga ciy boole fulla ak fayda quoi xam nga xam ni lu ne xej na ci soo wërsëg bu ci nekkee vraiment mën na la yóbbu fu sori. même bu ci nekkul tamit sa wërsëg rafet ci quoi maanaam def ci liggéey boo xamante ne nii ku ko gis dina xam ni ñii ay liggéeykat lañu xam nga noon noonu la demee suma diggante ñoom ñoom ñëpp ñu nekk sama sama sama gaañ xam nga samay xarit tournage fii rek lañu toogoon léegi di play xam nga kon xam nga ni xaritoo bi lu dégg la suma diggante ak yéen.

ngeen nit eh, ñëpp eh, eh, changé di am écran plat dañuy génn kër gi ñoo ko soo amul fu la man ma am fu la ma ne doogu mbay na man waaw gis nga kooru maman dafa nekk benn affaire bi nga xamante ni nii koor gi yëpp soo xoolee film kii yuy daw sketch yi daw ci ci ci seen YouTube bi bum ci opul buzz rek opul ëppoo ko buzz wa yalla nak moko defal mo ñu defal lool ñu ko koy sante di ñaan tamit mu xeeb doli affaire bi mu gëna yaatu euh commentaire yi parce que nit ñi ñu bok gis-gis nit ku nekk ak fi ngay gisé yow mi di def sax sa sa gis-gis rek ngay defee quoi ni nga xalaté ak ni nga ko bëggé ngay defee ki sétane mun na baña xalaté fofu mënu na baña gisé fofu Euh, debi bi metti wonna parce que debi bi lu ne nga don dégg nga don gis ci commentaire yi mais alhamdulilah ñu japp ma ñu baye rek nek ci ba tay ji ni commentaire bu bu lay nakari do ko gis vraiment bu lay nak te lol ak milier bi ñu nek mo and parce que milier bi dafa nek lo xamanteni ni dafa dafa dafa euh, dafa dafa dafa xawa doy war tuuti quoi ci par rapport ak ñi ñi sétane ak ñi apprécier parce que léeg sax ba ci ba ci mbokk gi wala say xarit yi ngay àndal da ngay gis ni que carrément léeg nga day gaañ boo xamante ni da lay félicité bu la gisee di naan vraiment li ngeen di def dafa neex dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa jaar yoon mais dangay seetlu ni bu demee feneen da ngay dégg mu wax fa leneen naan jom dafa ñàkk fayda léegi ay théâtre lay joué am naa sama benn gaañ boo xamante ni sama xarit la def na ma lu mel noonu affaire bi touché ma ba tay ji ni nak waxuma ko dara ci affaire bo mais bo gisé mu tuddu ko sax ci émission bi luma luma touché la quoi mom peut-être bu sétane émission bi dina ko xam té souvent buñu dajé daf may félicité di ma nan vraiment affaire bi neex na woo ci non ni kërëp kërëp xam nga mais bu démé fenen après lénen lay wax quoi lool ak milieu bi ño and ni apprécier euh vraiment amuñu séni séni fay bu féké lu déggul ci ñom quoi euh voilà lol dal lol dal bu gonna ko ci cabaxal tuuti quoi. ñaanate boko ñaanate mu ko ñaanatee ñi ci de. ayuma la dara waaw naka ci mburu rek ma doon. dama na la ñaanal ko mburu. boo koy ñaanal mburu may. ey dina ko fasali yow yaangi tok so soof di ñaanal kenn duma yam lu man ci kër gi. da ngaa manqué mburu yow. lu muy eppal momi man ñaan lu ma la kenn mburu. so ma lu ma gën a bu ma yablu nag. bu ma xam lu si ñaan ay mburu. wa da ngeen di soog ba dee. naanal café gi ay peuvre ngeen li dégg néew di sa noonu amul benn télé bu ko mën a bañ guddi tey yi te xam naa ni télé bu ko mënta yóbbu dina ko jël mais euh, lépp loo gis rek euh, ndànk-ndànk quoi parce que ñun suñu ambition benn affaire la woon mooy jël El yóbbu ko foo xamante ne nii dafay kawe te macha allah ñu ngi ci yoon bi di ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla gën ñu teg loxo. xam nga njëkkante ji ci télé ji di fa yóbbu say affaire ak yooyu noonu yooyu yëpp euh, mooy loolu proposition yaa ngi fii ñun amoon nañu ay ñoo xamante ni proposé nañu mais ñu ñoo ñu ñoo pareegul woon pour pour pour pour jàllale ko yóbbu ko télé mais instant bi nii nag euh, yaakaar naa ni fu mu nekk nii ñoor na pour ñu dem voilà léegi nag dañ ci jéem waxtaan ak gars yi rek ku ci fu fu intérêt bi ëppee après incha allah dañ ko fa yóbbu comme ça ñu koy ñu koy teg. Ah, ah. wax ko mu waxtaanee leneen eh, eh. na waxtaanee leneen ah. yow da ngay nelaw gënt say gënt eh. ñëw fi di ma jéem a sosal wallaahi boo ma sosalee dinaa la rek arrêté sa tuflit yi mel ni koy roose fleur rek lu ma rek karo boo ko tojee sa luwaas dañ koy fay ndax karo yi la rek leen sa bopp bii nga dërëj mel ni fecc ko sabar waxal ci karo yi bañ a wax leneen bus boo waxaatee man damaa wax damaa am lu ma leer waaw lii lii lii li gën a jóge nag mooy waajal tabaski parce que ku xam korité ak tabaski deux mois dix jours rek moo nekk seen diggante waaw dinañ ci tourné waajal tabaski bi ak mama ak bado bi aussi mu ngi bëgg a yàgg xam nga bëgg nañu yeggali quelque affaires yi comme ça ñu commencé ko jàllale ak yeneen projet yoo xamante ne ñu ngi ci aussi incha allah bu bu pare rek gars yi ko gis bu soobee yàlla. Adama Diomba nga. Adama Diomba la gàcce. yow ma bett ma rusoo. ko Amadou Diop yow rek nga yow. ko Amadou la la leen wan. lan la leen loo wane yow. dafa expliqué. loo wane. ay sama téléphone. waaw lan lan la wane. yow Amadou Diop war ngaa dugg ci mbaar mais sa bool bu dee mu du lekk. waaw xanaa man daas amul. yow man ngay monté yow. wow semua kay wow na ku lekk ku waaw suma digganteeg moom moom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko parce que yàlla moo ma booleeg moom mom ko xamee ba léegi vraiment dara ñaawul teg na ma sama place ma nit ma ko place am mu doon sama grand frère mais bo ñu féké ñu tok da nga yaakar ni ay morom lañu xam nga euh, relation bu bu bu bu rafet la wa bu jaar yoon la té fep fu ñu tok affaireu liggéey rek lañuy waxtané amuñu benen débat bu ñuy waxtané mbir non liggéey rek fo ñu fekk ñu tok affaireu liggéey lañuy wax voilà ma ngi koy nuyu nag bu baax mom élage Lo di ko ne fi mu japp fofu la na gëna japp xam nga ku auto bu nekk ci kanam rek la gaay di corner ñakul am ñu nekk ci ginnaawam diko ko ak diko ko fitnal ko fitnaal mu xamni ni yep nako ko tege a côté xamni ni mo démé nonu ñi dañuy bëgg ñi li yalla xam doyna mais terul bo nekk ci li nga wara nekk rek nekk ci inshallah bu yalla ñëwé rek bu popa di nga am dëgg ci kaw ñëpp diko ñaanal tamit limu sumu yalla gën ko ci jappalé gën ko ci euh ba lepp luy mbébétam mu mu am ko ci am na ko accepté waaye mu ñëw fii boo ko la tudd ba ba ba daal ci am nag biir Elvision Média dañ ko ubbil porte yëpp des fois sax man damay fàtte sax lu ma ci doon parce que côté yëpp dama koy dama koy dama koy mais sama liñ ma jox daal bu ma xam ne lii moom joxoon nañ ma jox nañ ma ko mooy directeur artistique mooy mbirum artistes yi ñu war a ñëw jouer xam nga ñu war a jouer affaire yooyu yëpp ci sama loxo lañ ko toog lañ ko teg euh, ak jour tournage yi aussi man may woote xamal gars yi aussi jour bi la ñuy tourné fii ak fee wala fële la ñuy affaire yooyu noonu yooyu yëpp maa ko géré mais terewul aussi même yeneen côté yi léeg ma dem wax ci sama xalaat xam nga xam nga fu ñu la moom boo saa yoo gisee loo war a wax rek ah, mun nga ko wax ak teggin nag quoi voilà noonu daal lay dundee biir El Média en même temps présentateur la foofu quoi ci biir El Média parce que léegi-léegi euh, émission war a am saa waay woo ma ne ma def émission bi ma ñëw def ko waaw xam nga ba pare bu ñu ko defee aussi ma gis ni que nit ñi ñu ngi may encouragé di ma di ma jàppale voilà vraiment daal ñu nekk El ak ñiy seytaan amuñu seeni fay waaw amuñu seeni fay di kontaan si ñoom bu baax a baax baax a baax gis nañu commentaire yëpp te bu ñu dugalee gis nañ lu ñu ciy jàppee lépp lu ñu dugal ñoom dañ koy vi xam nga amuñu seen fay ñu ngi leen xam nga mënuma jaar si tour ñëpp mais. am na ci koo xamante ni bëgg Bamba xaw ma man dama nuroog jëkkëram nee na mais jëkkër ji la bëgg a jàppale rek waaye xam ne ni man maa dàq jëkkëram <laughs> di ko nuyu moom it xam nga ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci biir di ñu bégee waaw am ñu seen fay su ma mënoon tudd seen tur ñoom ñëpp dinaa ko def parce que kontaan naa ci ñoom lu bëree bëree bëree bëree bëree ñoom ñoo tax tey ñu nii lépp lu ñu mën a dégg sax ci suuf xam nga ñu ñu faxas ko dem def pour ñoom dañ leen di bégloo quoi waaw vraiment amuñu seen fay quoi. sama mot de la fin nag xanaa di nuyu di nuyuwaat ñëpp ñi nga xamante ne ni eh, ñu ngi ñuy seetaan ak sama côté famille ñi nga xamante ni sama waa kër comme fii quoi ñu ngi may jàppale di ma encourager xam nga di ma ne jàppale rek dina baax parce que li ma li ma boolee dafa dafa dafa dafa bëri. bëgg di nekk ci aar bi bëgg nekk ci ay business xam nga yombul nag quoi waaw yombul mais nag boo gisee moom métit bi yëpp ñoom ñoom ñu ngi ma ciy soutenir ñu ngi ma ciy jàppale voilà ñu ngi ma ciy jàppale te et puis pa bi ak maire bi moom boo gisee affaire bi su ma ci nekkee nekk à l'aise free dañ ma ci ñaanal xam nga ma am ci yaakaar nag bu bëri xam ni lu jot euh, yomb parce que diiran bi ma ci bi ma ci commencé yëngu ak léegi mu ngi bëgg a yàgg parce que soo xoolee 2006 laa commencé def milieu laa commencé nekk ci milieu bi euh, joué fi ay scènes yu mag mais mooy loolu quoi ba tey ji nii ñu ngi ñu ngi fii mais ñu ngi ñaan yàlla aussi euh, ñu weesu fi ñu fi ñu nekk ba ñëpp ni ñu seetaan ñëpp ni ñu dégg partout voilà di kontaan nag ci ñëpp ñëpp ku lim juum di di di di remercier ku ci mel ni Leuz Leuz Pam kooku sama nijaay la. kooku suma digganteeg moom triché wul ci dara voilà suñu gëjee gis sax ci seen bi wala ñu gëj a def benn affaire moom chaque jour saa yu xëyee dina ma woo parce que Seydina Mohamed kooku aw ma fayam di gërëm aussi ki nga xamante ñi nga xamante ñu ngi bitim réew ku ci mel nii Adja Anne ak Mami ak Badara Gueye Badara Gueye depuis Espagne nekk sama sama sama xarit waaw vraiment di ma yónnee ay xéwal ay ay ay ay ay ay koper ha badara dara aw ma sa fay maa ngi lay maa lay lay bu baax baax baax baax te xamni ke li ngay def ni mënoon mm, na la ci baña mais sa xol bu yaatu ak sa xol bu rafet donc nga koy defé euh, di di di di di gërëm aussi ibu depuis france ak aliou tiam momit mu ngi france ko mom man ak moom depuis euh ñu doon ay xarit saa yu ma defee benn affaire mu woo ma kaañoo ma xam nga sànni ma xeer ay ñoom Alsan Golok France moom it euh, maman yaay booy kook sama cousin la comme ni Alsan nekkee sama cousin moom it États-Unis la nekk ñoom seen télé yi la ñuy jàpp des fois ñu filmer sax envoyé ma euh, affaire yi euh, maman yaay booy la tudd moom Umar Sall la ko gars yi gën a xamee moom it maa ngi koy maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne nii. Ah, ñu ngi ciy jàpp ay ñoom soxna Bamba mooy jabaru Bamba Bamba euh, docteur Guèye euh, maa ngi koy nuyu euh, moom mu ngi Italie di ko naan gëj naa jot ci parfum yi yi moo yónnee woon yëpp jeex na na fexe indiwaat yeneen aussi xam nga di baalu ak nag ñëpp ci weer bu tedd bi du ñàkk léeg-léeg nga joué benn affaire am ñu mu laal walla nga wax loo xamante ne ni am na ñu mu déranger ñu xam ne rek nit moom motul Hmm, te ñun vraiment su ñu demee bay def dañu bëgg def lu leen di bëggal mais pas du leen di gaañ voilà lépp luy njuumte ci affaire bi daal ñu ngi ñu ngi baalo ax di jéggalu te xam ni motuñu quoi kontaan ci yéen bu baax a baax merci one love